asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa waa wér gi yaram ñu ngi nuyu ñëpp waaw mbokk ma ma doon laaj ci wàllu allergie yooyu ci wàllu bët waaw bët day bokk na ci yi gën a mën a am allergie xëy na allergie yi moom ci fu bari lay feeñ ci yaram wi yëpp waaye bët yooyu bokk na ci yi nga xam ne yi mooy gën a feeñee te tout néew na ku ci mucc surtout nag yi nga xam ne moo koy waral lu bare bare da nga koy tawat sax ci wàllu bët te boo demee fekk loolu rek koy def benn fi ma nekk wala li muy dundee wala li muy dundee yooyu moo koy indil problème boobu eh, te muy yi nag lool di jaaxalaat it te it nekk loo xam ne su ko nit ki xoolul ba xam ko it mën na ko yóbbee nag dem ba jafe-jafe ci wàllu gis-gis feeñ ci moom te ñu baree bari ba tey loolu dana leen dab ñu gis ko allergies yooyu nag yu bari la yi koy sabab bokk na ci ñi nga xam ne fi ñu nekk comme pënd bi ngelaw li pënd bi dadul du normal toujours nga xam ne foo xam ne ba fi nekkee doo mën a xool bu baax moo xam fi ngay liggéeyee la moo xam fi ngay dundee la moo xam yu mel noonu ñoo ñooñu li ci gën a bari allergie yooyu mën a leen da feeñ ci wàllu bët ndax xeeti microbe yi nga xam ne ngelaw yi da koy yenu léegoo-léeg di ko muy tàbbi ci bëri loolu mën na ko indil jafe-jafe boobu ñenn ñi ay eh, eh, jamono yi ñuy yi nekk la loolu da nga gis ñoo xam ne réew yi ñu nekk wala bala yi ñu nekk surtout dafa am na fa xeeti garab yoo xam ne bu ñu àggee ci tontóor jamono boobu pour nit ko xool doo ko mën ñu bare bari loolu da leen dam dal si boobu nga gis seen bëri fu toll mu ngi mu ngi mu ngi toxoñ mu ngi toxoñu walla sax ñu ngi e, e, mu ngi xonq waaw wala mu ngi mu ngi xesan wala muy jooy wala yu mel noonu yooyu yëpp da nga gis allergie boobu fekk fi ñuy dundee jamono jooju surtout wàllu lolle bi wala yenn xeeti garab yi jamono yi ñuy tontóor noonu loolu da ngay gis ñoo xam ne fi ñu nekk dañ koy jàmbat lu bare bari loolu da leen dal ñenn ñi li ci gën a bari mooy fii li suuf jamono ji nag loolu moom daanaka moom laa waroon a gën a jiital wax ko sax mooy ñi nga xam ne li ñuy jëfandikoo fu mu ne xeeti écran yi ordinateurs yi téléphones yi télé yi ko mel noonu écran yi yooyu te fu ne daanaka dem nañ ci ba kenn mënatu la tàqale ko moom ci wàllu dund eh, su ko defee loolu itam moom it mu ngi indi jafe-jafe yu bare bare bare te loolu yaakaar naa man mii sax dund naa ko xam naa ko man dama daa de toujours suma suma kom nga xam ne daanaka li ngay def li ci ëpp fu mu ne daanaka ci téléphone yi écran ci ngay nekk te xëy na charte yi yëpp doo mën a dëppoo moom yu mel noonu léegoo léeg mën a toog da ngay xëy sa bët yi xonk coru coru coru coru waaw xam nga ñun niñ ko ñemee léegoo léeg da koy def surtout nag écran yi nga nekk moom ci lëndëm gi nii bokk na ci li ci gën mooy dangay taal làmp da ngay taalu làmp waaye ñun fu ne da ngay fay làmp bi nekk ci télé bi wala fay làmp bi nekk ci ordinateur fay làmp nekk ci téléphone bi ordinateur bi écran boobu mooy leer wala lumière boobu lu ko gën a bon ci bët amul sa bët yi day métti métti boole ko xesen xesen boo xam ne wala muy wala muy jooy jooy yoo xam ne wala mu xonk cur yooyu yëpp da koy def te loolu bokkoon na ci bi ñuy waxtaan ci jafe-jafe yi nga xam ne téléphone yi da koy indi loolu waxoon nañ ko wala xeeti appareil sax laay wax écran yëpp day indi lu mel noonu surtout yàgg ci te niñ ko ñëwee ndax wax nañ ñoom ne maanaam jam ci sa bët bi trente minutes sax loolu ëpp na te ñun da ngay gis koo xam ne rek da ciy nekk suba ba jant bi solaar guddi gi yëpp mën na ciy nekk benn waaye waxoon waxal ma defal ma ci diw ñaan suñ bi su tëdd jotee ci téléphone bi lay ne ba ba fajat ba set ñaanal mu bakk seetal loolu xam nga kooku li mooy def sax du ko yëg waaye su muy yëg rek mooy xëy bëtam yi commencé am problème kon bokk na ci jafe-jafe yooyu nga xam ne téléphone wala appareil yi dana koy indi mooy allergie yooyu nga xam ne day am ci wàllu bët di feeñ ci wàllu appareil yi moo tax ñu koy jëfandikoo war nañu jël matuwaay yu wér su dul loolu rek dañuy am problème ci seen seen gis-gis kenn nag mënoo ci dara damay wax na toujours nit ki su tolloo ci jamono yi wér nag moom ak digg digg digg dooleem yu bëree bëri du ko gis du ko ja du ko yëg waaye foofu duñ fi sax moom bu jant fenkee lu mu yàgg-yàgg dina so lu bëccëg gi yàgg-yàgg jant bi dina so suñ lay wax loolu na nga doo ko gëm waaye bis bu ñu àggee fenn fi rek ba wàññeeku wàññeeku commencé ñëw da nga xam ne rek lii nga doon def léegi amul benn njëriñ wala la nga doon a jaru ko ndax ñàkk say bët moom dara jaru ko te yu ci gën a bëri loolu da koy indi kon gis nga loolu da koy def ñenn ñi li leen koy indil gis nga même jëfandikoo xeeti garab surtout antibiotiques yi ñu def ko traitement yi yàgg xam nga da ngay gis ne ni surtout li ñuy waxtaan fii dégg naa ngam baax na rek borom topp ci rek di naan rek di naan rek te moom dara jotul surtout yu mel noonu wala sax mu naan ci lu ëpp lim ci waroon a jëfandikoo loolu traitement la yoo xam ne ci diir yu gàtt la ko rin wala jëfandikoo soo ci amee li nga bëgg da nga koy bàyyi mais saa soo ci dugalee sa yaram loo xam ne tey waroo koo jël rek da nga gis xeeti allergie yu may def yoo xam ne mën na feeñ ci sa bët jafe-jafe mën na ci feeñ loolu am nañ ci ay tekkal yu leer mandarga ñenn ñi da gis allergie yooyu ba tey li leen koy indil mooy wàllu euh, li ñuy lekk lekk yi am na ñoo xam ne ñoom ñoo ko seen seen seen seen yaram a koy bañ waaw surtout lu mel ni gis nga wàllu prime am na furbe boobu ñuy wax prime dana fi am léegi lu neex la lool am na fraise loolu am na fa ak yeneen ak yeneen daanaka ku ne sax bi lay bi lay dal da nga gis ñoo xam ne bu ñu ko lekkee rek nga gis seen bët yi commencé de def ay mandarga commencé allergie boobu ñu jàpp ko mu commencé am jafe-jafe yooyu loolu da koy am ba ci lekk yi sax ñenn ñi gis nga jën jën yi la leen koy def ñenn ñi nen la leen koy def ñenn ñi meewa leen def ñenn ñi soowa leen koy def ñenn yenn jus yi moo leen koy def yooyu yëpp ay xeet la yu bari yoo xam ne daanaka mëneesu ko takk yooyu yëpp ay xeet la yoo xam ne nit ki mën naa indi allergie boobu nga xam ne léegi day feeñ ci wàllu bëtam ba di ko indil ay jafe-jafe ak yeneen sax yoo xam ne xëy na àgguma ci waaye bii dafa bokk ci yi nga xam ne tey moo gën a sës moo gën a jege ba ci sol sax ñenn ñi am na lu ñuy sol yeneen tiis yoo xam ne moom surtout nylon bi moom la seen yaram gën a gën a bañ buñ ko def rek nga gis commencé loolu di feeñ mandargay allergie boobu feeñ ci seen yaram wala mu commencé feeñ ci seen bët yi ñu am jafe-jafe yooyu nga xam ne léegi moom la allergie bi àndal na ñu di ko loolu it euh, day am su ko defee nag bokk na ci mandarga yi muy xeeñ moom allergie boobu mooy bët yu xonk cor da nga koy gis mais da ngay daje ne waaye lu nañ ko bëri mu ne dara fekk dara defu ko lu mooy li ma waxoon noonu yenn surtout na sëgg ci xeeti écran yooyu moo koy def boole ko di bas bas yi fu mu toll ba di jooy loolu da koy def boole ko moom itam di toxoñu mandarga la ci fu mu toll di toxoñu rek toxoñ toxoñ toxoñ wala nga demam yaa ngi bëgg mu lu am lëndëm mel ni nekk ci biir ak ak saxaar waaw ngay toxoñ toxoñ toxoñ rek ngir bëgg mu leer loolu da ngay gis bu yàggee léegi loolu da koy def walla sax nga gis bët yi commencé mel ne lu góox noonu mel ne lu néew yi dañ koy gis ne bari bari na fugg noonu loolu dana koy mandarga la boo xam ne allergie bi dana koy génne bokk na ci mandarga yi ne allergie bi dana koy génne mooy xasan wokkatu da ngay gis muy boo xam ne jéggan la bët bi li ko war noonu fu mu day eh, toxañ rek te dara yóbbu ko li may li ma waxoon noonu benn ci xeeti yëre wala ci xeeti appareil yi nga xam ne léegi da koy jëfandikoo wala sax yi mooy lekk wala yu mel noonu wala sax day mitti yenn sax da nga gis bët bi du kii sax waaye day mitti xëy na mandarga yi doo ci dara waaye day toog bët bi mitti mitti boo xam ne jéggi na rek te boo ko xoolee sax doo xam mën naa bañ a xonq mën naa bañee a néewi mën naa bañ a xesam wala ko mitti yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne moom itam day feeñ ci wàllu eh, allergie boobu wala sax jafe-jafe gis-gis yooyu yëpp mën na ci bañ a feeñ waaye day am mu jig jafe-jafe gis-gis xam ne su xoolee ni daanaka du gis su baax day mel ne léegi benn nuage moom moom moom moo benn saxaar moo jaar diggante moom li mooy xool loolu mën na koy def te fekk dara yóbbeewu ko lu may allergie boobu nga xam ne léegi moom itam moo ko def ci kenn ci yooyu ma wax noonu nga xam ne léegi moo ko doon jëfandikoo moom la doon su ko defee nag saafara si moom bi ci jiitu mooy li may bañ rek ba ko waaw am na ci yoo xam ne du tabat mais bàyyi li may bañ surtout xeeti allergie yi moom bàyyi may bañ rek ndax loolu bi lu ci gën a bëri bind lay doon pour nga faj ko ba mu dëñ mën a nekk mais du yomb am na ñoo xam ne noonu lañuy ñuy bindoo da nga tooga ni nii li ko di def muy def ngay def loo gis moom dara yow soo ko defee gis ko moo tax loolu nit ñuy yemuñ ci moo tax su boobaa nag li ci gën mooy seet li li nga xam ne tey moo ko moom moom ngay moo indi allergie boobu nga bakku bu dee ma tàmbali ci ñi nga xamante li ma wax écran yi lay def nañ ko moytu wàññi ko wala fi ñu nekk ñu tàllan te bañ koo taal ci lëndëm gi wàññi écran wàññi it leeraay gi ndax bu dee téléphone yi ak lu mu mën a doon ak da nga gis léegi ñu def foo xam ne dangay wàññi leeraay gi waaye dangay nga gis ñoo xam ne dañ koy taal ba mu leer nañ ñi nga xam ne suñu bu la jamee sax day mel ni ràbb la ñuy jëm ci sa bëñ loolu ñu ñu sax ci téléphone yi xam nañ dañ koy jëfandikoo boole ci nga ay verre lunette yoo xam ne yu dëpp ak wér yaram da nga ko takk loolu nag bokk ne ci ji gën a dimbale ndax am na ci koo xam ne ba mu ko sonalee sonal gu jéggi dayo nga xam ne noonu la laan def moom ba mu wutee ay weer la tàggoog loolu rendiwoo laan dem guddeeg bëccëg suba toqal yi fu ne dugg na ci waaye dara métti métti waaye keroog ba nga xamante ne xam na ne léegi loolu moo ko jàpp bi mu commencé léegi takk ay verre ay lunette wàññi na mu daan def loolu la ci la tàggoog moom kon su ko defee ñu tam nga xamante ne loolu dañ koy def it nañu wàññi loolu. bu dee ñi nga xam ne xeeti lekk yi leen na fexe ba xam lekk yi ko way def su ko dee mu moytu ko suba loola mën na koy dimbale bu dee ñi nga xam ne kay fi ñu nekk nag jamono ji wala <clears throat> fi ñuy liggéey lu mel noonu moo am ci jaww yi melalkaan woo xam ne ah su boobaa yi nag loola day set dana ma tuxum ba ko su ma a wut feneen wala boog ah mu muñ wuti ay pexe ba tàggale ko loolu rek su boobaa loola moo ci bu dee moom garab yoo xam ne daf ko doon jël te garab yi waru ko dépassé limite yi mu ci war a jël mu bako su boobaa léegi loolu mën na koy kon kon yii daal su ko defee lem lu ne la ko def dañ koy seet léegi su ko defee mu bàyyi ko su ko bàyyi rek léegi yàlla mën na koy defal fee ba mën naa mën naa bañ a fajo sax te loola euh, euh, nu mu tuddati loola saafarawu euh, su ko defee it nag Euh, muy jëfandikoo yi nga xam ne yu baax la lool surtout carotte carotte bi muy ko def jus di ko naan baax na trop ci wàllu bët wàllu arrêté boobu moo xam doom bi la bi lekk nii di ko gis su ko mënee def jus nag moo gën wala muy ko yéey noonu bis mu ne mu jël doomu carotte rek raxas ko mu set mu yéey bam yéeyal di ko lekk loolu moom lu ko ci gën amul ci wàllu bët même xobi carotte yi sa ba tey baax na trop ba amee xobi carotte yi baxal ko ba mu ñor ma fegg ko lekk di ko naan wala ko di ci sëlmu moom it lu ko ci gën ba tey bëriwul baax na trop ci jafe-jafe wàllu bët yooyu bu koy jëfandikoo yàlla mën gis nga même concombre euh, euh, bi ba tey baax na ci trop trop moom it bu koy def jus wala mu di ko yëy fajar ci lu yem rek su boole ko li may lekk léegoo-léeg di ko lekk wala mu di ko jus di ko naan lu ko gën moom itam bëri lem bi it noonu lem muy baax na trop même mën na jël lem sax diw ko ci kaw bët bi noonu li wër bët bi noonu rek ab diir su ko defee léegi mu raxas dix minutes waaw wala ko léegi tàngal ndox moom kaas ndoxum tàng ma def ci kuddulem yëngal ko naan wala sax su fekkee lem bi direct moom moom mën na ko noonu mu jël lem bi noonu jël kuddulem di ko naan su xëyee mu jël kuddulem naan loolu su koy jëfandikoo su borom mën na koy defal tawfeex ba jafe-jafe yooyu yëpp yàlla mën na koy saafara surtout xeeti vitamines yi su lu mel ni vitamine C yi nga xam ne yu baax la lool orange pomme mandarine limon jus yooyu ba ci xaal bi ba ci yu yëpp mu di ko jëfandikoo léegi def ko jus di ko naan lii daal baax na ci moom trop eh, lu mel ni nebedaay bi même doo xobi nebedaay yi gis nga bañ daan lekk bu njëkk mbuumu saab saab mi baax na trop bu mu dul mbuumu saab saab ba ma léegi gis nga mbuum nduur bi nduur nduur mbuum bi léegi mu bari trop ndax nawet bi am na am na barab yoo xam ne boo fa demee fu mu ne mu ngi ko fees del lu ëpp njëriñ te ni ñu ko sàggane jigéen rek ay quelque xob rek di ko def comme ataaya ni di ko naan lu ko gën ci wàll bët amul waaw moom nag comme ataay rek mënees na ko de ndax moom xobam bi boo ko wér moo woo moo xobi ataay yi daanaka noonu lay mel soof ci ni nga defee ataay rek baxal léegi soo xee naan kaas waaw su ngoonee nga naan kaas lu ko gën ci wàllu bët yi moom bariwul kon loolu bokk na ci tegtal yi nga xam ne tey yomb yu jege yoo xam ne ak yeneen sax yu bare bare bu dee ñu nekk ci e, biti réew lu mel ni kii kamoon kamoon benn e, gàncax la moom itam xëy na danañ koy indi fii waaye dañ koy importé di ko indi waaye bu dee ci bitim réew moom am na fa ko gaañ ci ñoom dañ koy saf safaree def ci lekk yi sax moom it lu ko gën ci wàllu bët am ci jëlee kudd bu ndaw mu noonu rek léegi def ko ci litre ndox baxal ko ba mu mu teg gonom di ko jël par kaas bu xëyee jël ci kaas rek wala ngoon mu jël ci kaas incha allah bu ko saxoo moom yàlla mën na ko defal tawfeex ba jafe-jafe bët yu bare bari yàlla mën na ko ci saafara ak yeneen yoo xam ne sax xëyee na yegguñ wasalaamaaleykum wa rahmatullah